ñu fesal boppi xibaar yi kuréel gi ñu xamee si Gambia Supreme Islamic Council di kuréel gi nga xam ne mooy saytu mbiru diine islam fii si biir réew mi ni ki démb si rek daal alxames gi ñi nga xam ne ñoo yore kilifteefu li nga xam ne moo di kuréel googu nag daal gën nañoo wane seen ab taxawaay si rek daal ànd bi nga xam ne ànd nañ pour daal ñu neenal luwa wala sarta bi nga xam ne mooy tere loolu ñu xamee si female genital mutilation gannaaw bi nga xamee ne ñoom xam nañ ne yóbbu jigéen néegu jigéen ab mbir la moo xam ne diine islam ànd na si dinañ ko yaatal si biir xibaar yi di Gambia ministre of energy di jëwriñ li nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne dafa xeet ak mbirum li nga xam ne moo di courant moom it nag teewoon na foofu si rek daal pencal ndawal rew mi doon nag daal xamal ñi nga xam ne ñoo teewal askan foofu si pencal ndawal réew mi nag daal fi nga xam ne fa la nguur gi nag daal toll pour rek daal daal di yaatal mbirum la nga xam ne moo di courant si biir réew mi fii leeg atum 2025 dinañ ko yaatal si biir xibaar yi First Lady Fatoumata Baro di soxna yi njiiti réew mi moom nag daal ak ab gàngooram nag daal ñu ngi foofu si réewam li nga xam ne moo di Amérique si rek dëkk bi ñu xamee si rek daal New York dem nag teewee ji li nga xam ne moo di ab xew-xew boo xam ne dañ fay nag waxtaanee lu aju si rek wàllu li nga xam ne moo di daal soxna yi naka lañ leen di gën a doolelee bi nag mooy juróom benn fukk ak juróom ñetteelu yoon façon ngi nag ndaje boobu nag daal di am ko yaatal si biir xibaar yi ak yeneen gannaaw bàkka bi ñu daal di yaatal ajuma la fukki fan yi ak juróom si weeru mars atum 2024 di atum ñaari junne yi ñaar yi ak ñeneent ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu rek yaatal li nga xam ne moo di daal xibaar yi gannaaw bi nga xam ne jamono ji nag coow li nag daal bari si rek lu aju si rek female genital mutilation maanaam yóbbu jigéen néegu jigéen gannaaw bi nga xam ne amal fu loolu ñu xamee si female genital mutilation dañ bugga nag luwaa boobu ñu nag daal di ko neenal gannaaw bi nga xamee ne yenn si kilifa diine nag daal dañ nag daal di ànd ak tamit yenn si li nga xam ne moo di ay député yoo xam ne ñoom seen bugga bugga mooy nag luwaa ji nga si female genital mutilation maanaam yóbbu jigéen néegu jigéen daal dañ buggal lu waajooju nag daal ñu nag daal di ko teeral ñi nga xam nag daal di xeexal askan wi seen ak ak euh, kilifteef bi nag daal ñoom ni ki amal nañ ab ndaje boo xam ne seq ko ak way taskatu xibaar gën a wone nag seen ab taxawaay si rek daal seen bugg a bëgg mooy daal pour rek daal ñu neenal luwaa ji xam ne mooy tere euh, loolu ñu xamee si rek daal female genital mutilation nañ ko nag daal di neenal su ko la nga def ko ci sa dara te dara warut la see nag daal di fekk ñoom nag xam nañ ne li nga xam ne moo aju ci wàllum female genital mutilation maanaam la moo xam ne daal euh, diine lu mu daal santaane la si rek daal ab ndaje boo xam ne daje boo xam ne ki ki nga xam ne moo moo jël xalimba teg si këyit gi mooy ki nga xam ne moo di président bu Gambia Supreme Islamic Council si ndaje mi nag bataaxalam boobu nag ki nga xam ne moo ko jàng si kàllamay arab mooy ki nga xam si Kadi Omar Seck di first vice président bu uh, Gambia Supreme Islamic Council moom nag uh, bi mu nag daal jàngee bataaxal boobu si kàllamay arab ba noppi ki ko nag teg si kàllamay angale mooy ki nga xam si Mohamed Ka mu nag daal di wax ne lu aju ci wàllu yóbbu jigéen néegu jigéen mu daal female genital mutilation mbir la moo xam ne du rek daal mbirum li ne moo di aada waaye nag mbir la xam ne diine islam moo ko nag daal di santaane gannaaw bi nga xam ne wax na ne ki nga xam ne moo di yonenti yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam jamonoom daf ko daan nag daal santaate nag dañ ko daan def si li nga xam ne moo di daal uh, uh, uh, kanamam ba tey daal ñoom ñi nga xam ne ñoo di Gambia Supreme Islamic Council daal xam le nañ ne ñoom nag daal lu aju ci rek daal lu lu nag diine daal di euh, santaane la si rek daal ndaje moomu tamit Cheikh Kadi Omar Seck nga xam ne mooy first vice president bu Gambia Supreme Islamic Council moom nag daal ni nga xam ne noonu la ko daan euh, daal euh, santaane daal bu fekkee ne daal ñëpp nag daal dañ topp si rek daal ni ko yonent bi nag daal si kaw ñi nga xam ne daal ñoo koy nag daal di def bu ñu sukkandeko si ay kàddu kàddoom Cheikh Ibrahim Diadiou second vice président bu Supreme Islamic Council moom nag daal dina euh, wax daal li nga xam moo aju si wàllum female genital mutilation maanaam yóbbu jigéen néegu jigéen mbir moo xam daal doomi li nga xam ne daal aadama yi ba tam daal moom nag wax bu fekkee daal li nga xam ne moo jigéen néegu jigéen female genital mutilation su ko ne ne daal euh, def ko comme ni bi nag daal euh, santaane nag daal mbir a benn jafe-jafe oustaz Ma Binta Cissé nga xam ne moom moo wax si turi soxna yi si rek ndaje mi moom nag daal dina wane daal ñi nga xam ne ñoo di daal euh, soxna yi nga xam ne wala nit ñi nga xam ne dañ nag réeree lu aju si wàllum nag daal yóbbu jigéen néegu jigéen ngel la waaye nañ fexe di nag daal laaj ñi nga xam ne ñoo di boromi li nga xam ne moo di xam-xam yi di leen nag daal di leeralal bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom betanal moom nag wax na ne li nga xam ne moo di yóbbu jigéen néegu la moo xam ne diine bañu ko maanaam diine santaane ko te sax ki nga xam ne moo di yónnante a daf ko nag daal santaane bu ñu sukkandiku si kaddu yi moom ki ñu xamee si oustaz Ma Bintu Cissé nga xam ne si ndaje mi moom nag moo doon wax si rek turi ñi nga xam ne ñoo di daal euh, soxna yi. ñu si beneen li nga ne moo di daal xibaar. di Gambia Minister of Energy di jëwriñ ci nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam dafa xeetook mbirum li nga xam ne moo di daal courant Abdoulaye Diop noonu lay wuyoo teewoon na foofu si li nga xam ne moo di daal pencal ndawal réew mi ci kanamu ñi nga xam ne ñoo nguur gi li xam ne moo matuwaay yi xam ne daal ñoom ñi nga xam ne ñoo nguur gi seen i bugg a a daal mooy fi rek atum 2025 nag daal si biir réew mi yëpp daal mu xam ne daal daanaka ak daal ñiy toogal askan foofu si pencal ndawal réew mi moom ministre Abdoulaye Diop nag daal dina tontu euh, di nag daal ko fa mu nag daal di wax li nga xam ne moo di projet nga xam ne tëral nañ ko pour daal yaatal daal euh, doxal ba léegi léegi ba léegi bu ñu sukkandiku si ay kàddu ne li koy firndeel si rek daal diwaanu li nga xam ne moo daal central Badebo ak yeneen si li nga xam ne moo ay gox nag daal jamono ji euh, tàmbali nañ fa nag daal yaatal lu aju si wàllum li nga xam ne moo daal wàll euh, courant bu ñu sukkandiku si rek daal ay kàddoom daal dina wane li xam ne moo Project bu ñu xam si di Gambia Electricity Access Project am na lu toll si téeméer ak ñeneen fukk ak juróom ñaari xam ne moo ay dëkkat dëkkaan yoo xam ne euh, jamono ji nag daal ñu ngi fay yaatal nag laal courant bokk na si si suufi West Coast region Central River region ak fi ñu xamee si North Bank region bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom daal dina wone am na sax daal ab liggéey boo xam ne tàmbali nañ ko fi ñu xamee si Lamine Koto Diabugu wax daal bu yàggut sax daal am na ab nag liggéey boo xam ne daal ndar keppal nañ ko fa te nag daal lu toll si rek ñeneen fukk ak benn si li nga xam ne moo di ay dëkk xam ne moo di daal projet boo xam ne lu toll si rek ñaari téeméer ak ne moo di ay dëkk dëkkaan ñoom i nag daal jamono ji nag daal ñu nag yaatal mbirum courant si li xam ne moo di dëkk dëkkaan yooyu si suufi li nga xam ne moo di daal West Coast Region te nag wax na ne buñ nag pare si li nga xam ne moo di eh, béré boobu tamit dinañ nag daal àgg fi ñu si rek daal di waanu Foñi gi ak fi ñu xamee si El Arad Lower River Region North Bank Region ak Central River Region bu ñu sukkandikoo rek si li nga xam kaddu moom ki nga xam ne moo bi daal dina xamee tamit nag si li nga xam rek yaatala mbirum li nga xam ne moo di courant réewum daal China a sax daal daanaka daal dinañ wax daal lu toll si fanweer juróom-ñaar si ay dëkka dëkkaan si suuf West Coast Region eh, bokk na si fi ñu xamee si Mamouda euh, dinañ fa nag yaatal lu ay ci wàllum li nga xam ne moo di courant bu ñu sukkandikoo si moom ministre Abdoulaye euh, Diop nga xam ne mooy ministre of energy wala jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne dafa nag xeetoog euh, wala dafa laale ak mbirum li nga xam ne moo di courant si beneen xibaar First Lady Fatoumata Babaro ki nga xam ne moo di soxna yi njiiti réew mi jamono ji moom ak daal ab délégation am wala ab gàngooram ñu ngi foofu si réew mi nga xam ne moo di Amérique si rek daal dëkk bi ñu daal New York dem nag teewee ji li nga ne moo di xew-xew boo xam ne bi lay juróom benn fukk ak juróom ñetteelu yoon di ko amal ab boo xam ne dañ fa waxtaanee li nga xam ne moo di soxla yi li nga xam ne moo di jigéen yi ak daal yan nag daal euh, naka lañ leen war a daal di euh, doolelee moom ki nga xam ne moo di soxna yi njiiti réew mi si rek daal délégation am bi nag mu ngi ànd ki nga si Fatou Kinte Gambia's Minister of Gender, Children and Social Welfare ànd tamit ak ki Salimata Touré Secretary General and Head of the Civil Service moom ki nga xam soxna njiiti réew eh, di délégation bi nag si ki daal moo di di daal xew-xew boobu noonu moom ki nga xam ne soxna njiiti réew di Fatoumata Bah Barrow si rek daal li nga xam daal xew-xew boobu nga xam ne tamit nag daal dina ko teewee daal dina teewee tamit nag dalloo boo xam ne ñu nga xam ne moo daal soxna yi surtout nag soxna yi nga xam ne ñuy nag yëngu si rek wàllub li nga xam ne moo daal yaxantu li nga xam ne moo nguuri président Adama Barrow daal am na daal ay nag daal jéego yoo xam ne jël nañ ko pour a gis ne li nga xam ne moo soxna yi nag danañ leen dooleel ñoom nag daal ñu mën a gis seen bopp si li nga xam ne moo daal penc penc mi euh, ki ñu xamee si BJ Hugh nga xam ne moom mooy di executive director si kuréel gi ñu xamee si We Love You Foundation moom it nag daal daal dina wax ne daal li nga xam ne daal moo di daal xew-xew bi nag xew-xew bu nag daal am solo la bett na daal daal dina siqa waxtaan ak ki nga xam ne moo di soxna njiit réew mi di Fatoumata Ba Barrow pour daal ñu ñu daal di lëkkaloo euh, pour daal mun a nag daal gën a taxaw li nga xam ne moo di daal askan wi surtout nag li nga xam ne moo di daal soxna yi si rek daal xibaar nag daal gu mujj gi li nga xam ne moo di kuréel gi ñu xamee si ñaa koy taybatu Kangeng Kafo ab kuréel la goo xam ne mu ngi foofu si rek diwaanu Wuli West si suufi Upper River Region ñoom nag amal nañ seen nag daal ab nag daal ndaje boo xam ne at mu nekk dinañ koy nag daal amal di nag daal waxtaanee li nga xam ne moo aju nag seen wàllu li nga xam ne moo di dëkk yi nga xam ne ñoo nag daal bokk si li nga xam ne moo di daal seen kuréel gii bi lee nag daal juróom-benn li yoon ñu wala benn li at ñu di amal nag daal seen nag daal annual general meeting maanaam ab xew boo xam ne ndaje boo xam ne at mu nekk dinañ koy nag daal di amal si seen nag ndaje mi nag bokk na si li nga xam ne moom lañ waxtaanee li nga xam ne moom lañ nag daal jot a defagum biñ sosee kuréel gi léegi li nga xam ne moo di jafe-jafe yi nga xam ne jànkuwante motal nañ ko ak tamit li nga xam ne moo daal seen mébét si rek daal at mi nga xam ne moom lañ nekk di atum 2024 li nga xam ne moo di kuréel gi nag ab kuréel la goo xam ne lu tol si fukk ak benn si ay dëkk dëkkaan nag daal nekk foofu si rek daal Upper River Region ñoo nag daal bokk si li nga xam ne moo di daal uh, kuréel googu noonu seen nag daal ndaje mi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ki nga xam ne moo di alkaali wala borom dëkk bu nag daal dëkk bi ñu xamee si taybatu alhaaji mbembanding jaabi sàkku na si li nga xam ne moo di ndaw yi ndaw yi nekk foofu si rek daal ñaakooy ne daal war nañoo fexe ni di nag bàyyi xel fexe tamit nag daal di sàmm wante ak li nga xam ne moo di sartay réew mi uh, fexe tamit nag daal ñu nag daal bañ a daal di uh, bàyyeendeku gannaaw bi nga xam ne daal xam ne daal li nga xam ne moo ay ci rek wàllu li nga xam ne moo di daal ay tafaar si biir li nga xam ne moo di réew daal bëri loolu ba tax daal nga xam ne daal di leen bu baax a si nag daal yan mbir nag la ñoo daal di yëngu moom ki nga xam ne moo bi tamit mu nag sant gërëm li nga xam ne nguuri président Adama Barrow si nag taxaw bi nga xam taxawu nañ ko li nga xam ne daal kuréel bu ñakoy kambeng kafo sàkku na si ñi nga xam ne ñoo di fukk ak benn dëkk dëkkaan yi bokk si rek daal kuréel gi ne daal nañ gën a booloo su ko defee rek daal ñu mën a suqali li nga xam ne moo di daal seen dëkk dëkk dëkkaan yooyu mu nag daal di nag wax ne daal ñoom kuréel la goo xam ne kuréel gu am solo la goo xam ne dañ am nag daal sarta boo xam ne moo tënk li nga xam ne moo di gi te nag daal lu nag daal tax na daal ñu mën a nag daal amal li nga xam ne moo di ay nag daal jéego nag daal yu baree bari si rek wàllu li nga xam ne moo di daal njëm kanam mu nag daal di wane ab kuréel la goo xam ne daanaka nag daal ñetti at yu nekk dina am nag daal ñu bees ñoo xam ne ñooy jiite li nga xam ne moo di daal euh, kuréel gi Barasa Suusu nag mu continue tamit di wax ne mu ngi sant gërëm ki nga xam ne moo di njiit di président Adama Barrow gannaaw bi nga xam ne daal di mottali seen marché yoo xam ne ñoom sa daal ñoo ko tàmbali woon seen nag daal bopp mu nag daal di wax ne laata nag daal ñu doon nag ñaan ndimbal dañ nag tàmbali nag ba noppi bi ñu tàmbalee ba noppi nag xam ne daal euh, nag daal euh, am nañ jafe nag wax ne mu ngi nag daal sàkku si ñi nga xam ne ñoo di waa kuréel gi yëpp nag daal lépp loo xam ne ñu koy def nañ fexe nag ba laata nag ñuy ñaan ndimbal nañ nag tàmbali ba noppi su ko defee nag daal doog a ñaan ndimbal Ansou Camara nga xam ne moom nga xam ne ñoo bokk gi nag daal ñooy joxe seeni ay dërëm euh, pour rek daal mun a amal li nga xam ne moo ay yokkute si rek daal euh, fukki euh, fukki dëkk ak benn nga xam ne ñoo bokk si kuréel gi mu nag daal di xamle ne daal lu toll si daal juróom ñeneenti téeméer ñeneen fukki euh, junne si euh, koppar yi dalasi nag daal moo nekkoon si li nga xam ne moo di daal keesu li nga xam ne moo di daal nguur gi te nag daal koppar googu mu ngi nag jógee ko li nga xam ne moo di fukk ak benn li nga xam ne moo di dëkk dëkkaan yi bokk si kuréel gi nga xam ne daal ñi bokk jëkkee si dëkk yooyu moo xam ñi nekk si dak biir dëkk yooyu ak ñi nga xam ne ñu ngi si diwaanu biti réew ñoo nag joxe li nga xam ne moo di daal seeni ay nak daal dërëm te nag wax ne daal koppar googu nag daal nag daal jënd nañ ci li nga xam ne moo di ay nag jumtuwaay pour rek daal mottali li nga xam ne moo daal euh, seen nag daal euh, marché ji te nag wax ne daal euh, bi ñu nag daal mottalee seen marché bi nag daanaka li des ci kees gi toll na si nag ñaari téeméer ak ñaar ñaari téeméer ñaar fukk ñaari nga xam ne moo di junne ñaari téeméer ak fanweer ak juróom si koppare li nga xam ne moo di dala si ñoom kuréel gi de ñàkkoy kambing ka foo ab kuréel la goo xam ne ñu ngi ko sos si daal li ko tax a jóg nag mooy nag daal fexe li nga xam ne moo di daal seen nag dëkka dëkkaan yooyu nag daal ñuy nag daal Euh, defal seen bopp nag daal lépp loo xam ne daal luy nag jëmale kanam seen nag li nga xam ne moo di dëkk yooyu. yi loolu mooy ndar képp wala mooy jeexal seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi xaritu boroom bi ak askan wi Ibrahim Khalil géey moo leen ko doon jottaleel ci kàllaama wolof jaajëfal leen si euh, seetaan bi ak euh, déglu bi jaajëfal ñi jàppoon si xibaar yi dem mun a sotti jaa ngeen jëf.